كبيرهم الحاج عبد الله وشقيقه ابو بكر وعمر واحمد شقيقهم وعلي اخوهم ومحمد الحبيب وابراهيم وصاحب الاسم الكبير شيخ التجاني كن ليغا ماي لاج موي تي ميرم زياره ليغا ماي لاج موي تي ميرم زياره اك لان موي اسلوب زياره اك لان موي لان لا نيت دي امي تي زياره ماما لاج عبد الله نياس موم لاج دان زياره نكا جيك ndax ziyaara dañuy wax ne inna fi ziyaarati ziyaada waaye sama ustaad na déedéet inna la fi ziyaara siyaada mu ne boo ziyaara rek di ci am ndolleeku waaye du doy di nga ci doonee sang maam El Hadj Abdoulaye Niass lañ doon ziyaara bu ko defee ziyaara bu njëkk nag taalibe yaa daan dajee rek jël seeni hadiya ñëw jox ko El Hadj Abdoulaye mu waar leen ci yàlla waar leen ci yonentu waar leen ci Cheikh Tidiane aslan looloo newoon ziyaara ba ziyaara Euh, bam mu ñëw ba yegg ci ci ki nga xamante ne mooy xalifaam ba mooy doomam waaye mooy yaminam mooy simaalam waaye moo ko dond ci mboolem mboodi muy maam xalifa ñas bi mu ñëwee nag ci ra'yu mam Chafi maam Chafion ñas ci lañ taj di dee mbir mi mooy na nag danañ ko def cérémonie boo xamante ni ñëpp dañuy toog nit ñu toogee ci gàmmu bu ko defee taalibe yi rawatina muqaddam yi ca la ñuy dajee ña nga xamante ni aajoo nañ ijaaza maam xalifa lijaazal leen si ña nga xamante ne aajoo nañ eh, li nga xamante ne mooy talqinul wirda maam kalifa Niass talqin leen ca ñi nga xamante ne fàtte woon nañ surutu tariqati maam Khalifa Niass waxaat leen ko ñi nga xamante ni bëgg nañ tëbb ci wilaya maam Khalifa ñes tëbb leen ci wilaya lii moo waral ci sama qasida ba ma indi naalal wilayata bal naalal xilaafata bal naalal ijazata min ahlil maqaamaati da ngay dem ba xam ne rek moom Khalifa Niass dafa dondo Alaaji Ablaay Niass ci dëgg-dëgg ba taxna sax li nga xamante ne Mame El la daan taxawal bim fi nekké bim fu wuté rek da ngay gis ne mom la wotu dal di koy taxawee moo Cheikh Omar mi nga xamante moko xam ci khilafa gi nga xamante mom la dondu bayam diko wëyel euh taxawu ci taxawé ko bi muy tagg mam Khalifa Niass baat bi mu utiliser moy khilafa dana ko wa huwa al khilafatu wa huwa al khilafatu fina wa huwa qudwatuna waye mam Khalifa Niass li nga doon ci ñun moy khilafa ndax innal khilafata gi ma la waxoon rek musbanat wa musbadaat marsumatun bi fatan min ali abbas ta dafa dond ci cheikh tidiane khalifa ndax wa ay qanal kulla anni imamuhum fil ilahi wa laysa da'wa walakin shukran fil ilahi kon nak khilafa gogu mu dond motax mam cheikh omar di wëyal di wax ak mom ci li nga xamante moy khilafa nako yow khalifa ñass yow yaay suñ khalifa way yow yow khalifa ñass yow yaay suñ suñ deggu way yow khalifa ñass yow rek ci lañuy roy woy khalifa bindal mu ne wa huwa al xalifatu fii wa huwa qudwatuna thiqu tafuzu bihi min saairi haji ndax mam khalifa buntam bi hawa faraida ilmin min ziyadati kama hawa kull sirrin ci buntam bi ngay ñëw fekk fi ki nga xamante ni dafa indi ay ajo fekk fi ki nga xamante ni dafa am ay soxla ñii dañoo indi soxlaay doom ñii dañoo indi soxlaay bëgg aji màkka bëgg nañ kaala gi wër leen te mënuñu koo am sama ustaad nag da daan wax ne keroog bi maam Khalifa ñas demee ba léegi nii muy wax moom xamut ci jamono koo xamante ni daan nga def li maam Khalifa doon def lan la maam Khalifa doon def mu ne aajo fiñ ko ko waxee fi la koy fajee waaye naqar fiñ ko ko waxee fi la koy teggee ndax buntam bii daan nga ci fekk koo xamante ne nii bëgg doom mu të waye bu ko khalifa ñess ne ko da nga am doom bala dewen sa buy ñew da nga gis mu halu ci tante bi bu daan warlu naan jug leen ngeen wax seen soxla yi ma fajj ko ndax man may khalifatu Cheikh Tidiane fofu ngay gisee ñu taxaw naan khalifa yaa ma ñaanaloon doom am naa ko ñi naan yaa ma waxoon màkk mu hal ne yon yónnenteeg Cheikh nga ne tok lu waay bëgg na wax ma ñaan ko barke l'islam alhamdulillah ma sante Allah moo ma tàngi boor julli ci maamu di jëfandoo diine lislaam ci loxo ca kaw ñu doon gàmmu xaal ne yonent ak cheikh nga ni toog lu waay bëgg na wax ma ñaan ko barke lislaam alhamdulillah ma sant yàlla moo ma tàddi boor julli ci maamu di jëfandoo diine lislaam ñi ñaan lu dem Makka ñi naan doom ju barke la ñaan ñi na xam-xam ñi na xaalis ñi na lislaam alhamdulillah ma sant yàlla yàlla moo ma tax di boor julli ci maamu di jëfandoo diine lislaam mooy li ma doon wax rek ñëpp dañuy ñëw ci buntam bi te ku ci nekk bokkook sa morom soxla loolu nag moo tolloog la waykat ba daan wax ne li muxtalifi alxaajaati jamcun bi baabihi fa haada lahu fannun waaye wa haada lahu fannu ndax fa lil xaamili l ulya wa lil muxdini l gina wa lil musnibi l utba waaye wa lil xaayifi l amnu waaye damay des ak yow ci ginnaaw wax naa la ziyaara mu ngi ko dondee ci Baye Malaaj Ablaye Ñas nag mu des xilaafa ndax xalifa Ñas bu doon ne yàlla da koo jiital ci kër baayam rek te matut ak xalifa konoon da nga gis ñii def ni ñii def nii bu ko defee mu indi mbir moo xamante ne day indi duwoo bu ko indee nag mu nekk shattaani bay na zaawa zaaka waaye cheikh al islam alhaaji ibrahima ñas bi ko ñëpp taggee yëkkati xalimaam moom dafa yëkkati tagg ko wax ci moom ci coow loo xamante ni dafa dawoon ci Sénégal bàyyi ku ne jug di bàkku ku jug rek ne sama sëriñ man El Hadj Abdoulaye waaye sama sëriñ seenul El Hadj Abdoulaye Niass te El Hadj Abdoulaye Niass seenu ko ci catuwe wax ji di wër di wër di wër ba seet si cheikh al islam alhaaji ibrahima ñas fii borom yaqulu ibrahimu najlul haaji abdul ilahi badrin al wahaaji min baadi bismillahi thumma alhamdi lillahi dhi tawli al azim al majdi nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqata tijani tariqu mahdi al fadli wa ridwani usisa bi sunnati wal furqani cheikh al islam ne danaa bind ci maam xalifa ñas ndax bu ci ñëpp bindee te man may yaree fu xalifa ñas day mel ni man du ma seede te seedekat buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax bindal mu ne man qaasa walidan bihi bi walidi ayna al furuuci ka furuuci al walidi man kal xalifati alladi taallama minhu wa minhu qad xawaa taqadduma ay najluhu alkabiru baxru alcilmi wa faaqa fi lsigari kulla alqawmi radda an alcheikhi ala alfuxuuli wa sayara alcaalima kaljahuuli له تواليف له اشعار رائقه لنا بها افتخار شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نياس نينا تيتر بي غن ري بما ام تي مام خليفه نياس موي سوما генي تي بيتم ريو با دغ بيتو مام خليفه نياس ba tari arab bi nga xamante ne moo ci nekk ndax xamal ne maam Khalifa Niass aslooma arab la ndax in lam takun bayinatun annana arabu fa fi lisaani bayaanun annana arabu ndax sax abnaau inyaasi qad dallat chamailuhum bi anna unsuruhum yunma ila al arabi kon arab buy wax arab day mel ni rek yaa ngi dégg sàmm buy maye meew loolu du kéemtaan waaye cheikh al islam haj ibrahima Niass nee na maam Khalifa Niass suñ génnee ñun dañ koy tiitaroo li tax ñu koy tiitaroo dafa nekk taaw muy benn ñaareel ba mu doon El Hadj Abdoulaye Niass ñetteel ba mu doon ko ñeenteel ba mu doon yonent juróomeel ba mu doon ko juróom benneel ba mu doon Cheikhou Tidiane juróom ñaareel ba mu doon ko ba pare nag doyut moom mu wëlbati ko nekk ilahi fil ardi lolo tolloog la ma la doon wax sànq wa ay qanal kulla anni imamuhum fil ilahi wa laysa daawa walakin shukran liman lil ilahi أيقن الكل أهلي إمام في وأيقن الكل أني إمام في الإله وأيقن الكل أني إمام في الإله وأيقن الكل أني إمام في الإله رجاك وليس دع ولكن شكرا لمن إلهي شيخ الإسلام حاج إبراهيم لو تيترو ndax yow cheikh al islam ken dakou la bind mm-hmm. ndax li nga bind gis nagn ko الخط يبقى دواما بعد كاتبه وصاحب الخط تحت الارض مدفونه جسنا نسى عربي من ديدت نخ مام خليفة الحاج محمد بمي جلدو دفا ام لو خامتني كين امو كو تي مبولم الاسلام سيرن بي ورال فلا نيه تي ادنا شاك جور ما واخكو لانسي ديفي تي كو نه نه كو نيك ييرال سا بندم سيرن nga wax texte serigne do musa wax ne yonentou yalla محمد سخال نكو لامي نيام وايا مام خليفة نياس ci juddoo Maam Alaaji Abdoulaye Niass mooy nettali ne musuma gis yonent yàlla Mouhamed jahran kérok bi mam Khalifa ñes juddo fi ci bayal bi ñu tok fi lay fekk yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wasallam ne ko dama am dom te gor la te yow la ko bëgg tuddé yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wasallam li may wax mu ci inas ndax jang kat yi dañ wax ne ida fuqidati dalili dalla sabil mu ci inas bi nga xamne ne rahimahullahu Cheikh Tidiane gay moko bind mu ci basamatur rasikha wal karamatil khalida mamala jablay ñes mu ne ma yëkëti mam Khalifa ñes jox ko yonent yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ma ko joxee yonentu bi yonentu bi taf ko ci dënnam te dënn yonentu yàlla Muhammad du n'importe quel dënn parce que yonentu bi bi mu rañaanee subhaanalladi asra bi abdi laylan min al masjidil haraami ci rañaan goog dafa am kéemtaan lu fa xew mooy na yàlla dafa jël yonentu taf ko ci dënnam waaw yonentu ko wax ci hadis bul ne ma nu yàlla dafa am dënn xamuma yonentu ne ضمني الحق في صدري فظننت ان من في السماوات والارض كلهم قد ماتوا من يالله دما جيل تفما سي دنم من يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم تا تيروك سي لا نجورتو ني ليپ لي سي ديغنت اسمانك سوف دينا تا نياري ني وي بغنت سون داجي نك با تيغنت دن دارا دو فا سوتيكو لودول خمخم تميم البرغوثين ويرجعني الى خمر معتقه كالبحر من بعد موسى عاد والتاما بيم كو تافي سي دنم رك سول كو كونتينيرو خمخمي كونتينيرو خمخم يوي نك يونت يالله ديفالون ko ci dënnam ba di wax naan fa awxaa ilaa abdi ma awxaa loolu mu ko roof yontu yàlla Mouhamed roof ko maam Khalifa Niass saxal ko làmmiñam keroog la dégg arab Khalifa bindal mu ne saafaxtu bi yamini fi musaamaratin wa dammani dammatan saxat biha ilali saafaxtu bi yamini في مسامرة سافت بيميني في مسامرة ودمني ضمة ودمني دمة صار بها علالي خفت بيميني في مزمرة سافرت بيميني في مزامرات ودمني دمة ودمني دمة سابيا إلى لي سافت بيميني ثم حدثني سافت بيميني ثم حدثني ودمني دمة ودمني دمة saar bi ilaali maam Cheikh Omar moom si la profité waaye wax ne mbooleem góor gu yàlla mos a jur rek ginnaaw saxaaba yonent yàlla Muhammad yi ak ginnaaw Cheikh Tidiane yi gaayam yi rek yaa ngi ci ron dëggu Cheikh Tidiane yi bindal mu ne baxru shariati bal baxrul xaqiqati bal baxrul funuuni jamii an duna faj faaji mu ne maam Khalifa Niass dafa dond ci géej ak yonent yàlla Muhammad xam-xam te yonent yàlla Muhammad mooy buntab yàlla ndax anta babul lahi ayyum riin ataw min xayrika la yadxuli motay tax caam ji ba munan ko anta babul ilahi anta al muraja anta min adwa al qulub shifa anta lil karb kaashifun wa mughiithun in atadna al ba'sa wa dharra wa lutakh mu ne naala min kal huda zawuhu bi fadlin min karimin yunilu man yasha kon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi don buntab xam-xam jël mam Khalifa nyas def ko muy jëmmi xam-xam kon nak mam Khalifa Niass doon xam-xam du berte waye bimu waxé waxee rek bu nekkon mbokk yi rek koko wax ko noon du yéme mam haji mohammed Zeynabu mi nga xamantene ni arab yi dañoo yému ci arabam ta arab yi dañuy wax ne al haji mohammed Zeynabu min al urba'i am huwa min al ajma'i am kana arabiyan wa saara lawnuhu ajamiyan ñu ne dañoo yéem maam Alhaaji Mouhamed Zeynabu bay wax ne ndax Alhaaji Mouhamed Zeynabu dafa nekkoon arab ci cosaan askanam di dox ba yegg si si Soudan deram bi soppeeku mujj a nekk ku ñuul ndax arab yii muy wax du arabu nit ku ñuul ñuy wokk deram bi di xool ba xam dafa xees pentiru wala noonu la mel moom daan na wax ne qad laaha bishru zamani baadama qataba waftarra hatta ra'ar راؤون ما عجبا إذا الأديب بليغ بليغ إذا الأديب بليغ الوقت شاعره وشا بأحسن مما قد وشى الأدباء دانا واخني مبولم قم قمي مبولم قيتو قم قمي تي بلاغة تي أديب تي أدب تي نحو تي صرف تي عروض تي ميراث ci tafsir ci hikam ci tawhid ci balagha ak li nga xamante mo lamb xetu xam-xam ya ci muqabala ci mushakala ci taswih ci sajju ci li nga xamante mom lañu wax xusnu tashbih ci li nga xamante moy ta'kidul madh madxi bi ma yashbihu wala bu na nexe ta'kidul dham bi ma yashbihul madx ci li nga xamé moy iqtibas waye ci yenen xetu xam-xam yo xamne ken munu ko lim gëm naa ne sama kër baay rek la am ta kiko fa dajale moy mam Khalifa Niass motax muné idhal idal adibu baliixul waqti shaa'iruhu kooku mooy maam Khalifa Niass waaye li ma doon wax sànq cheikh al di ko seede benn seede di wax ne lahu tawaalifun lahu ashaaru maam Khalifa Niass dafa dajale xeetu wëy yoo xamante ni ci biir wëy ya ca fekk ci biir xeetu xam-xam yi nga xamante ni nit du koy wër ci xam-xam yëpp mu tënk ko ci benn رائقة وية دفا أم دفا ييمي با داجال سيو خيو دقائق العلمية يو خمنا لنا بها افتخار سون جيني من داماي باي سما مبند باي سما مبند باي بين مبند رك راي تيترو موي مبند مام خليفة نياس واي سوما لا واخي تي لولو تا واخو مالا تي لي دومي سيدي داغا نان ما kon nit ñi rek sédé ci mom waye doom yi ko jégé won di dund ak mom waxuñ ci mom manela a kay jëlal tawam ba alhaji abdullah ñess muy taw bi mat taw ba dan na في مشرق أو مغرب يا صاحبي من حاضر أو بادي مثل الخليفة واسمها قد حازوا لا بالرياسة لا ولا الإفساد نخسر الخلافة حاذه بكماله لا حاذه بكماله لا بالدعاوى لا ولا الإلحاد لتخمن ورث الخلافة كابرا عن كابر عن شيخنا التيجاني ذي الأمداد نمل من هو مفرد في دهره ومكانه وخليفة الخلفاء في الإرشاد من وخو مكو نجير داي سما باي واي جنان الشيخ التيجاني كان رك موكو دوند ظاهر كان رك موكو دوند باتن ba muy wax naan qadamaaya haataani ala raghbati kulla waliyin laahi min ladun aadama ila nafxi fi suuri dama ne tey mbooleem borom yi xam-xam yi ñu ngi ci suuf ndëggoom maam Khalifa Niass tey booleem boromu xam-xam yi ñu ngi ci suuf tànku maam Khalifa Niass loolu nag maqaama la maqaamatun maanawiyatun la te laa tamassuhal yadd boo ko buggee xam rek da ngay laaj alhaaji Ibrahima Niass kan mooy maam Khalifa Niass mu ne man dama doon toog ci darsu yi di déglu borom xam-xam yi di tewlu seeni wax waye doyut may jël seeni mahallu shawaid doyut maleni doylo ndax ñom borom xam-xam yi la way kat ba waxon rek humul ula alifun dhillan wa maskanatan fama lahum qablana wirdun wala sadaru mu ne bi ma ba tok ci seen xaroon gis ne ñom ñep ku ci nek bind nga waye la nga bind doyna waye doyut ci doyna dafa mubalaghal ndax qawlun baligh ak qawlun fasih manatiqina dañ ko différencier dañu wax ne fasahatu moy wax jo xamanteni fasaha gi bil kalimat rek ci layam makna kalima yi ñoo am fasaha waye waaye suñ ko waxe wax ji da am fasaha da am baliix makna bi am baliix ba pare kalimat yi am baliix bind leen ñu ne li kulli balighin fasixin waye walaysa li kulli fasixin baliixin lu tax ñu ne li an al balaaxata yushtaratu fi al fasaha waye wal fasahatu la yushtaratu fi al balagha boko ko toppee woon nit Euh, noonu nga koy toppee rek ku ci ne di bind ci waxam Haji Ibrahima Ñas di doomam ne fa hal tara kawlaxun mithla al xalifati la ma mithluhu rii ayaala naasi bil himami mu ne man dama doon wër ci borom xam-xam yi di dégg li ñuy wax yemuma ci di ko dégg ma koy doyloo yemuma ci li koy doyloo ma koy jël di ko daliloo waaye keroog bi nga xamante ni toog naa gis li sama baay di bind ma jëw ba ci bayitam yu yéeme yooyu muy wax ne moom daal dëgg-dëgg fu yonentu yàlla Muhammad jeng mu ngi fay yeng fu Cheikh Tidiane jeng mu ngi fay jeng bindal mu ne ana maay badrul kamali haythu yamilu qalbi yamilu ana maay عذر الكمالي عيسى يميل قلبي يميل فقلبي سما ساتي سما روي وداد في وداد في وداد موتاخ بيم خامي انا بغي يونت يالله محمد مام خليفاتي راو نيب ناخ دان واخ كم يحمل القلب ما قد يعجز البدن عنه وتندك عن أسرارها القنن نقمنا مقاملا بغن ري سي مقامي موي بغ يونت الله محمد با يو دو وير وايي دو فيبر ناخ لي لاي ويرالاي فيبر واي لي لاي فيبر مولاي ويرال سقيم لا يموت ولا يثق ناخ تحمل القلب ما لا يطيق واي سي شيخ التجاني دنج ملني رك ñi nga xamante dañoo feebaroon muy Qays ibnul Maluux bëggam ci Layla moom daal ni mel yaa ko raw sax ci bëgg gi nga bëgg Cheikh tidiani ndax inni ana al muhibbu li daati Cheikh du walahin bihi kama hama majnun sababati nga dajale ñaari maqaama yooyu te arab yi dañuy wax ne wal hubbu tiflun mata taxkum alayhi yaqul zalamtani wa mata xakamtahu zalama in lam tutihu baka wa in ataata baga fala yurixuka maxkuman wala xakama mbëggeel daal for foor na foor goo xamante ne nii ki bëgg aji bëgg ji rek la mën a wax kem dayoog mbëggam bëggam ci li muy yëg ci kim bëgg xaaji ibrahima nee na bi ci sama baay rawee ci bëgg yonent yàlla Muhammad doyut mu raw ci ci bëgg Cheikh Tidiane ci laa xam ne raw na leen te wër naa taaxi Kaolack yi gisuma ku mel ni maam Khalifa Niass moo tax yéen waa Kaolack ma posé leen question ne leen fa hal tara Kaolackun mitlal xalifati waaye gars yi biñ na laara